ñun waa cité El Hadji Mademba Ngom waaw Cerisé ak famille Lamine Sané ak famille musaa Gueye ak famille Abdourahmane Ndiaye li tax ñu ñëw site bi tey nag mooy dañu am lu ñu métti fii parce que ku mel ni Ousmane Ndiaye dafa jàpp ne daal mën nañ ne sax site bii daal moom moo ko moom parce que site bii ay yëfu jàmbur kii bi ay terrain yi fi ne ay terrain jàmbur lañ ñoom seen terrain yi ñu ngi ko am avant 2023 Ousmane Ndiaye benn bës la ñëw rek indi fi benn baay ne 22 hectares la am fii te 22 hectares amul fii sa booy seet yaa ngi dégg avec la complicité de Mamadou Mamour Diallo ak autorités yi nga xam ne ñoo fi nekkoon 2014 2017 waaw ki nga xam ne nag moo di Ablaye jamoom moom. xam na li am fii yëpp xam na ne Ousmane Ndiaye kayit yi mu yor baaxul mais dafa gumba tëxlu ñun nag ñu ngi woo ki nga xam ne. moo di président Bassirou Diomaye fay ak ki nga xam ne mooy premier ministre Ousmane Sonko mu ñu xamal que ne que li am mbuurkaat lu ko raw moo am fii parce que ñi ñi ñu sédd euh, kaat ba ñuy commencé nommer seen i tur noonu la ñu séddee Ousmane Ndiaye fii parce que si ñoom la bokkoon. Ablaye Dia aussi ñu ngi koy woo xamal ko ne ko lii mu tabax fii li mu miire fii dañ koy yóbbu si yoon moom dañ koy yóbbu justice. dañ koy yóbbu justice parce que lii mu miire fii ay yëfu jàmbur la mais am na ñoo xam ne dem nañ ba tabax si biir mais dafa moom faalewul dara dafa ñëw clôturer. ba 2023 bii la wax ne dafa am baay kenn xamul baayam lan la avec la complicité de l'ancien régime Wa parce que su ñoom la bokkoon APR gi mu bokkoon donc affaire bi nag njëkkoon na dem justice waaye boo demee justice sax faf yaa ngi dégg boo fa waxee waxi Mamour Diallo sax dañ la non fi bu fa waxi Mamour Diallo boo fa waxee waxi wahi wahi waxi euh, Ousmane Ndiaye même chose parce que du mujjee fenn Ousmane Sonko premier ministre ñu ngi koy wax mu ñëw def fii audit bu defee fii audit. dina gis loo xam ne lu raw mbuurkat lu ko raw am ne parce que ay commissaire ku ne am na fi ay commissaire ay procureur ay ñu nekk domaine ñëpp ñu nekk domaine aussi dañ leen di porter plainte parce que ñoom ñoo def lii.